baal ma rek ma àggali foofu par exemple le cas de Ousmane Sonko gis nañ ñu bari jàpp nañ peut-être ko dal problème communication ak sortie yi mu daan def euh, ma ko tuddee mm-hmm. problème de communication. Mm-hmm. peut-être un problème d'incompréhension ou bien mm-hmm. a comprendre. de Birame Souleye peut euh, a a euh, maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw. parce que xëy na temps bi moo xawoon manqué tuuti mu ñëw mu naan non c'est c'est mais il waxul nañ ko defee donc ñun ñëpp xam nañu projet bi comme li mu la wax léegi bépp pàcc boo xam ne jël nga ko ci projet bi composé de seize partie pàcc boo ci jël rek dafa am temps de réalisation de ou bien d'atteinte de objectifs am na ñoo xam ne deux ans la am na ñoo xam ne quatre ans la am na ñoo xam ne trois ans la mais communication boobu noonu euh, je pense que yenn saa aussi yàlla y a l'effet mooy ki effet bi mooy que lan da ngay wax benn affaire les gens intervertissent tes paroles ñu coupé su leen neex sànni ko bàyyi lu ci des et comme ñun tous nous sommes adeptes la facilité la la loi du moindre effort dañu xool TikTok lu mu wax rek nga jël jàmm fa jàpp sa njàmbur iya. loolu yéen yéen a fi yéen a fi jiitu. xamul tax man la yéen a fi jiitu du ma laal boobu bàyyi ma continuer xamul tax man yéen a fi jiitu. <laughs> Birame du ma laal loolu bàyyi ma continuer Birame day wax benn benn mot wala benn phrase ñu génne ko ci contexte fan fan lay mujjee ay saaga. ça ce sont les sénégalais qui le font donc. ah waaw vous êtes sénégalais je suis sénégalais. Ah, du ma du ma laal loolu comme les gens disent commune euh, cour couramment. xam nga sànq yaa ngi wax tudd kii euh, les priorités c' est l' emploi nee naa tout le temps quand on est un bon manager quand tu vis dans une situation da nga def situation de constat ba pare. gis nga Birame je vous parle Birame je vous parle en qualité de de de manager de ressources humaines gis nga le projet euh, ou bien le programme que le président euh, Bassirou Diomaye Faye a demandé qu'on qu'on mette du contenu. à savoir l'audit du personnel, de la fonction publique et des institutions de l'État. Il sait très bien ce qu'il dit. Il sait très bien ce qu'il dit. Gis nga audit boobu noonu gis nga audit boobu noonu si on le fait sérieusement la moitié des travailleurs du Sénégal la les, les travailleurs vont être en deux ceux qui travaillent ceux qui ne travaillent pas. Vous vous souvenez de Macky Sall président Macky Sall ba mu ñëwee mu naan l'histoire de panier jaune panier vert panier rouge maanaam ceux qui sont là. ceux qui perçoivent qui viennent une fois par deux mois et ceux qui ne sont pas là mais qui perçoivent mooy panier pañe zone panier vert tu es là zone tu es mais à mois panier rouge tu n'es jamais là noonu lañ defoon ba épurer fonction publique hmm. man j'ai connu dans beaucoup de fayoon nañ fi sax ay nit ñu ñu dee mais mais tey la gën a graaw ah xam nga xam nga ah, y avait même ça une liste de personnes yoo xam ne déserté nañu ñu leen di fay xam nga Birame le le des jeunes au l'emploi des jeunes au Sénégal mhm. da ngay dem fonction publique ñu naan la diw mënatul liggéey parce que il a 60 ans c'est dans c'est c'est dans tous les compartiments de l'État diw mënatul liggéey il a 60 ans 60 ans pourquoi ñu naan mënatul liggéey parce que on dit que ses capacités peut-être intellectuelles dafa xaw a wàññeeku ou bien capacité physique peut-être je dis peut-être mais dañu jël barrière âge bu na bu am âge bi mënatul liggéey ci fonction publique à contrario on prend cette même personne on la nomme ministre on la la donne une responsabilité des fois sax da ngay retraité nga continuer comme yenn naa seen yenn naataangoo yi da ngay nekk kii nga continuer nekk directeur nga gis benn xale bu ndaw nga dem ba am 30 ans cinq ans liggéeyoo et que tu vois dans les institutions à autonomie budgétaire maanaam les agences de l'État les établissements publics les établissements parapublics qui ont les compétences d'employer des gens sur la base du code des obligations civiles et commerciales je veux dire la ñu nekk ay vieux am 65 ans 70 ans des fois vingt ans pour des raisons politiques nga bàyyi ñooñu foofu di leen fay et quel est l'avantage de ces gens-là ils pénalisent doublement le Sénégal de il prend la place des jeunes de deux il ne paie pas l'impôt parce que ce qu'il paye il paye juste le BRS le bordereau d'enregistrement à la place de quelqu'un qui gagne 2 par mois ou bien million par mois qui paye l'impôt à hauteur de quelqu'un qui a 1 5 pour cent de cette somme là loolu boo ko jëlee ba épuré ba jël Sénégal nga naan képp koo xam ne war nga dem retraite il faut donner la place aux jeunes képp koo xam ne yaa ngi fay ko liggéeyu liggéeyu il faut enlever bépp emploi fictif parce que loolu moo gën a bëri Sénégal c'est-à-dire que présentement vous voyez dans les télés au niveau des radios scandale yi ngay dégg partout hein euh, même sama kër fale am na ci tuuti bon le DG va me pardonner donc euh, il partout où vous voyez les DG fait des recrutements tout azimuts des postes même pas parce que on veut remplir alors or excusez-moi dafa am benn ratio boo xam ne moo nekk entre budget de fonctionnement budget de la structure et le euh, le montant qui est dédié, qui est dédié au, au, au, au recrutement il y un ratio entre recrutement et budget mais tey boo xoolee pour reprendre parce que c'est pas <laughs> moi qui l'ai dit c'est la presse qui le tout temps boo xoolee kii euh, euh, ce qui se passe au niveau des aéroports nga dégg li nekk li gars yi di wax au niveau de COUD nga dégg li gars yi wax ñun suñu kër fii ASP fii ak yeneen ak feneen les gens font des documents totémiques mais je pense que un état sérieux doit venir rendre les choses beaucoup plus claires avant de voir les mécanismes de recrutement des jeunes par rapport à d'autres piliers remplir les postes vides pour les donner aux jeunes et je suis convaincu que suñ ko demee ça ne sera pas moins de 1000 ou 2000 emplois parce que je suis dans le milieu je sais comment les gens mmh. suñu benn suñu benn mmh. suñu benn xarit suñu benn grand Mais quand on a vu, on a dit que sa femme est au niveau d'une télé de la place, qu'elle a un contrat depuis 12 ans, un CDI, que les gens ne jamais vu, même en carton, et les paye en tant que cadre, où va le Sénégal boobu départ non boobu toog boobu toog mu tëdd nga tëdd muy dox la <laughs> parce que tu n'es pas ci loolu am na ñoo xamee ni yaa ngi wax waxu prestataire mais dangay gis koo xamee day nekk prestataire 10 ans la muy liggéey. ak am d xaw ma CDI du ko liggéey te pourtant prestataire boobu lañ koy fay lu néew lay doon mu garder statut prestataire mais di liggéey cinq fois plus que ñi am CDI mais euh, duñ leen sax recruter. si vous savez vous savez le les wala bu ñu leen recruter muy indi jox. xam nga prestataire yi ngay wax. ak yi may wax ak yi may wax. gis nga. Eh, yow ah. prestataire yi ngay wax Birahima. Ah, ci war a liggéey yi ngay wax. Ah. ak yi may dafa xaw a wuutee tuuti. xam nga li ngay wax c'est c'est l'exploitation qu'on fait aux jeunes. exploitation. et loolu moi je l'ai décrié je l'ai décrié je l'ai décrié dans nos dans nos deux clubs des directeurs humains je salue au passage mooy CCRS et Oli Aspro l'association des des des espèces de ressources humaines. dama ne tant que l'État n'a pas pris de décision ferme sur les boîtes d'intérim problème day continuer ci am Sénégal mooy boîte d'intérim yi foo ñu jël ay solution benn man je. ku xamul da nga foog nga expliquer luy boîte d'intérim. pour nit ñi xamul parce que ngan di problème la ngan baal ma ci façon de le dire ñu ne euh, par exemple SDE moom moo war a liggéey nangam ak nangam mbaa SONES mbaa SONES orange euh, c'est par là yenn assurance man maa yore SDE yore samay employé mais la ma war a liggéey en tant que SDE wala SONES damay wut benn société nangam ah mu tudd Ablaye Naar jox ko muy intérim moom mu dem recruter ay nit ñoo xamee ni liggéey ba mu war a liggéey ci SDE am personnel bu mu ko war a def ñoom duñ ko def de société boobu boo pare su ma waroon fay sama personnel pour liggéey boobu cent mille francs ma jël fay société bi cinquante mille francs société boobu ci boppam wut ay prestataire di leen fay mille francs mille francs mille francs moo tax ba sous emploi boobu day fës actuellement boo jëlee tey Sonatel Orange ñaata société intérim moo am ci diggante bi sous-traitant nu ñu leen di wooye ñoo xamee ni daanaka doo ci am ñi cee liggéey dañ leen di surexploité sax te duñ leen jox lañ leen war a jox nga ñëw ne non Sonatel laay liggéey wala Tigo laay liggéey wala Sones laay liggéey te liggéeyu fa en fait benn sous-traitant moo la jël di la fay fay loo xamee ni te la ngay liggéey ña liggéey am fa seen i salaire am fa seeni i oto di dawal oto yu bakkane yore kër yu am am salaire bu bu duun seeni i compte bancaire fees ñoom bureau la ñuy toog di signer yow nga nekk sur le terrain di reyante mais lool ce sont des priorités yu nit ñuy war a dindi. li ngay. yaakaar ne mooy risque bi ak danger bi ak métti du xale yi dépassé na ko xam nga euh, dans un contrat de travail dañu naan pour ñu nangu validité bi foog nga remplir trois conditions benn bi mooy ko foog mu am au moins. Euh, euh, benn koo xam ne day liggéey maanaam le prestataire on appelle comme ça képp kuy liggéey da ngay prestation de tes de tes services foog mu am koo xam ne moom mooy fay maanaam ku lay fay loolu yëpp on peut le soo ko amee ñaari boo ko amee nga may fay ma lay liggéeyal. amul contra non amul contra travail. fan lay amee contrat travail benn condition lañ laaj mooy lan loolu la boîte intérim dindi c'est le lien de subordination boobu la dindi le subordination. mooy que lan la su may liggéeyal Bira Birahim su ma defee yaay tàppee sama kaw su ma liggéey yaa may fay su mu tardé yaa may laajte su ma ñëw su ma bëggul su ma bëggul ñëw yooyu laa yooyu laa laajte permission loolu bu amul même boo porté plainte y a pas de contrat travail. li li li Alamine di laaj léegi ana inspecteur du travail. mais mais c'est c'est que c'est que il faut comprendre aussi comme je te l'ai loolu yëpp boo ko boolee. foog mu am parce que c'est pourquoi les gens n'ont pas compris bale président Bassirou Diomaye Faye bi dëkk bi foog ñu raxas ko en profondeur bale bii nii foog ñu raxas tous les secteurs ak boo ci xalaat ñu ñeme ko wax ci public ñu bañ ko ñemee ci wax ci public tout doit être revu de fond en comble ndax le pays souffre les jeunes souffrent mais sànq bi mu la waxee prestataire je ne parle pas de ces gens là ñii du question euh, amuñu liggéey mais état moo leen seetaan ñi nga wax nii léegi l' état doit un secteur très réglementé et régulé les inspecteurs du travail loolu mooy seen liggéey voir les boîtes d'intérim est-ce qu'ils font correctement leur boulot